président damay delluwaat nag di wax ak ñun ñii toog ñun ñi nga xam ne ñoo fi toog tey doon ay maire te toogal population bi mu may njëkkee ci sa ministre yi di njëkkee ci sa directeur généraux yi di dellu si ci ñun maire yi ak député yi président def nga lépp joxe nga lépp confiance nag dafa foor te jox nga ñu ko comme jox nga ñu ko nag dañ koy delluwaat ci population bi président liggéey nga lépp li des mooy li ngay joxe nay àgg ci askan wi li ngay joxe na dem ci maire yi maire yi tamit nañ koy jox seen askan maire bu fi falu askan wa nga xam ne moo gën a xeebu moo gën a ñàkk solo moo la fal bu la joxut kàrtam doo falu ministre yi li yor nañ koy tasaare nañ koy tasaare président joxe nga nañ koy tasaare du ñëpp nag ndax am na ñuy liggéey ndax ñun dañoo bokk ci département Kaffrine am na ñoo xam ne tasaare wuñ ñi tasaarewul nañ tasaare mu dem ci askan wi yëf yi nay egg fa mu war a yegg wallahi azim niñ ko bëggee noonu la ko kilifa diine yi bëggee noonu la ko ñi ëpp bëggee olof neewul li ñëpp waxee dëgg de daf ne li ñëpp wax mooy dëgg li ñi ëpp wax mooy dëgg